برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وفاته وناصر ونصر الحق وحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره وعلى العدد ورجى الله تعالى ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوه الا بالله اذا انت شاهد ابن الله ولم تعطينا ولا دعاني الى حب العروض شهود سهادي وحبري والطروس شهود دموعي على الخدين كالغرب موهنا مع الشيب والأجناث ثم رقود دليل على ما قد دهاني وإنني عراني حال في الوداد شديد دهاني غرام حرم النوم موهنا وحل الحرق والغرام وقود لقد حرم الوجه الحلال محللا حراما وهل هذا القضاء سديد وإن حاد عن نهج الرسول فإنني على نهجه ما عشت وهو حميد أسير غرام لا أزال متيما وعن نهج خير الخلق لست أحيد إذا سار خير الناس سرت وراءه وإن حل يوما فالمسير بعيد عليه صلاة الله ثم سلامه بكل مرادات الكريم يجود عليه صلاة الله ثم سلامه تكون لنا الحسنى تكون لنا الحسنى وبعد مزيد عليه الصلاة الله والسلام وآل وصحب من فؤاد عميد دعاني هونما الى حب العروض شي بغ حجاز مكة مدينة من موي عروض امون خاج بوخمنا خامني شي سعودية في عروض في تهامة في في نجد عروض موي مكة أك مدينة bàyyi ne li ma oo pour ma bëgg Makka ak Madina mooy shuhud maanaam janoo gi nga xam ne moom laa janoo dëgg-dëgg ci pay ba nga xam ne yonent bi sallallahu ko jëmmal ci lépp sama fog fog mooy foole guddi bañ a nelaw ñàkk nelaw guddi wa xibri ak sama daha wa turuusu këyit yi shuhudun ay seede lañ ci li may wax shuhud gu njëkk gi janoo lay firi shuhud ñaareel gi nag jamu shahid la ngay shahid bëgg li ma def ma bëgg Màkka ak Medina mooy janoo gi may janoog dëgg-dëgg pay bi waaye sama xoole yi may xoole bañ a ñàkk a mën a nelaw guddi ak sama daa yi nga xam ne maa ngi koy jeexal ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak melal cofeel gi nga xam ne moom laa am ci bi sallallahu alayhi wa ak sama kayit yii nga xam ne kayit yu weex tàll la woon dara nekku nekku ci woon te bu ma xëyee ci guddi gi rek nga ñëw fekk kayit ya nekkoon démb ci guddi kayit yu weex tàll lépp ñun kub <coughs> yooyu ñooy sama tegtal ne dëgg-dëgg man dëgg naa loolu waxi bëggkat la waxi bëggkat la ku bëgg li mu bëgg dana ko tegte loolu ne waaye li gën a tegtal kay ne bëggee la mu yontu mooy ida saara xayru naa sirtu wara am li bëggkat yi def yëpp dana ko def danaa kebetu danaa caalit danaa wax waxaat danaa bind danaa xoole danaa jeexal daa danaa def këyit ya weexoon ñu ñuul يو يب اي تكتل لا لول يب واحي بنكر لا واي تكتل ام بيغنا وير موي ندف فتوك يونون تبي صلى الله عليه وسلم ودفع ودفع بايا ومايا لأن يهيمون شوقا بالرباب وفرتنا وجمعي حباني حب أحمد والفرق قاعد بقى رباب يبقى فرتنا ما يكون باق متي ولا نهاية يبقى كم يبقى متي يبقى bàyyi man nak sama bolé gi moma may bëgg yonent bi ak sama fasale gi wa jame wa farqi wa jame habani hubbu ahmad wal farq bu may bolé ma ngi bëgg yonent bi ci pay ba ma bëggee yàlla maa ngi ko bëgg yonentu ndax xam naa lu mu fa doon bu ma fasalee it danaa bëgg yonentu bi ndax xam naa lu mu doon ci fekk gars yi ñoom bëgg nañ ko mbaam ma teg fartanaag leneen dumuux yi samay ronqañ alal nii ci kaw ñaari samay lex kël xar bi ni ki baagab gis baagab mooy baag bu fees ak ndox mawhinan ci xaaji guddi wahan na firi doyadi waaye dina firi mu jëg guddi gi xam nga guddi gi bu demee ba xaaj rek guddi gi doyadi na amatul doole te li ma la ne baar ñoo bokk li ñuy firi mooy loolu moo hin mooy xaaju guddi te waxanu xam ne li muy firi mooy doyadi ñàkk doole guddi bu soree ci xam nga ne bu demee ba xaaj bu amoon bu amoon doole yi beesatu دموعي على الخدين كالغرب موهنا رونق يبري جسما ملاح بي تقاج بودي وقت ني خمنا ني نيب ني نلاو نلاو ني نيه ما جوج دي ما جوج مان دي جوي مع الشي بي اندك بي جاو بي دمنا با ماغتي مبولي سي تقادي ثم فوفل ركود وين نلاو لاني fekk ñépp a ngi nelaw man ma dem ba béjjaaw mënumaa nelaw di jooye guddi tooyar lex yëpp ci ronqañ ci xaaji guddi loolu daal ba tey damay tegtale ne man sama mbëggeel gi la jóge waxoon na ne banul bidi wal xamsiina hal li bukaa'ihim بشوق دوا كلا كذلك ما بها ونكو أم يوم فك أتاك لتك دي جوي غير بجيل بقلال بجيل أم يأمتشا أسافر بوه يدفرون قولا قد عادني الشوق المبرح ماليا قد نام جاراتي وأصبح واعيا حنينا الى مولى الرساله من غدا شبيع الورى الكل يرجوه وافيا بن البدر الخمسين وانا كوتشي معنا مغنى رفت شيب وتهيام ووج ولوعة على غير محبوب تعد مساوي باين بيجاو cofeel mbëggeel mbëggeel gu tat bay gëlëm loo borom waaye nga ne ci xuyaam ci gëlëm la jugee bu la nga ne ci xeyamaan yi nga xam ne feebar la buy dal gëlëm yi nga xam ne dañuy naan duñ màndi ba mukk wawaj dun walaw atun ak lakk ak cofeel boole yooyu yëpp ku màggat ba mel nii ma mel boole ko mbëggeel la lakk ak cofeel yooyu daal boole ko ci benn soppe bu dul sama soppe bi dafay mujj nekk ñaawteef sax loolu daal yonent bi nag nee na ronkañam yi ci laxam bi ci xaaji guddi ak béjjaawam bi te ñëpp a ngi nelaw moom nelaw dalilun ala ma qaddahaani دليل تكتل على ما قد دهاني تلا جدنما دها موي لو جدن لو خامني منكو سنال منكو جومال صح سنجلي داهية وإنني نكمن أراني غارنا حال حال شديد بأجتت في الوداد شنجلي حال بطل دال تبقل دال موما قال دهاني جنما غرام تفعل بو خمنه xarama xaraamal nelaw an nawma ci xaaji guddi bëggeel gi may jot dama xaraamalal nelaw ci xaaji guddi xaaji guddi moo gën a yomba nelaw ndax léppay dal te ñëpp a ngi nelaw dara soxlaalul la loolu soxlaal ba tere laa nelaw rek loolu soxla la sa soxla la loolu sa soxla la waxalala te daganal xarqi lakk sama walgaraamu cofeel waquudun safara la buy lakke mbëggeel daal safara la buy lakke safara si li ko ci dimbale mooy bët yi mu ngi root ronxañ di ko jéem a fay moo tax nga dégg ko muy wax ne ida nadaru naxwi ukafkifu admuci wa in gafalu arsaltu damciya mutlaqa نار اشتياقي واقد و واقد وهو مجمعي يحاول إطفى الجمر إذ كان محرقا ونار اشتياقي سفر اي سما mu ngi تاك waaye سما ronq yi di góorgóorlu moom it pour jéem a fay safara soosu mu ne tënk ak tinki la ci laa nekk foofu tënk ak tinki ba tey moom mooy farko ak jamaa mu ne boo may bu ma gaayee xoolee maa ngi masqué sama ronkañ yi di wane ne jooyul ma buñ sàgganee buñ ma xoolatul rek ma tuur ronkañ ba doyam waaye safaraay mbëggeel gi la ronkañ yi di jéem fay moo tax mu ne mbëggeel safara la safara soosu nag moom mooy essence yi oto bi jëm ci pay bi yàlla bi bàyyi dafa nekk ci oto ca Gaana Seydou Hadim di Seyd ci oto Abdul Xaadir Noga ñu dem ba ci kanam oto bi fay bàyyi na lan la ñu ne essence bi mooy jeex bàyyi na hakada mahabatuhu l muridi ida nafidat mahabatuhu waqafa seyruhu mu ne noonu la mbëggee li taalibe ak sëriñam mel ci taalibe bi taalibe bi waxtu wu mbëggeelam jeexee ci sëriñam rek séeroom ci yàlla dafay taxaw alhamdulilah kon wal xaraamu waqudu moom mooy essence bi nag mooy lakk oto bi waaye nag mooy tax oto bi mën a dagg mànd yi nga xam ne moom la dëgg dagg laqad xarama xaraamal na alwëjdu cofeel gi alxalaala lu dagan muxallilan di aji xaraamal xaraaman muxallilan di aji daganal xaraaman lu dagan wal hada alqadaau ndax bi lay atte sadidun atte bu jub la mbëggeel gi nga xam ne dafa mujj xaraamal lu daganoon daganal lu xaraamoon mooy li daganoon ci moom mooy nelaw mbëggeel gi aaya na ko ko daganal ci moom lu xaraamoon lu terewu xaraam ak xel lay wax fii ndax kii atteem bi atte bu maandu la mu ne fa in xaada bu fekkee cofeel gi dafa jéng an nahji rasuli moo tax soppi ko ñëw ci maanaam bi mu man xaada ku mën a jéng an ci yooni yonentu bi nii naka man maa ngi ci yoonam maa maa ngi dund fa huwa moom yoon bu sant bu fekkee cofeel mën naa àtte di xaraamal ak di teg lu xaraam fu dagan kon képp ku mën a def loolu daganal lu xaraam mbaa xaraamal lu dagan dangaa jàng ci yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa ndax moom yonentu lu xa lu dagan rek lay daganal lu xaraam rek lay xaraamal ku mën a jàng walis atte bi yonentu boobu man duma jàng walis atte yonentu ndax mooy atte bi ñu jël kon nga xam ne ci cofeel la doon wax waaye waxaar génn na wax ci cofeel ba dugal la ci wax ci atteewoo li nga xam ne mooy li yonentu sallallahu alayhi wa sallam indi ak bàyyi lim tere mm. nga xam ne loolu mooy mandargaay mbëggeel gu dëgg waxu leen ko tum tuhibuuna allah wattabiuuna yuhbibkumullah moo tax mu ne asira asir asira asira gharam asira gharam may wana hangane asiru gharam ana asiru gharam manam jar-jari cofeel laa xam nga jar-jar jar-jar mooy kuñ jàpp ci xare kuñ jàpp otage moy jar-jar ci olof asira garaamin la azalu duma dëñ mutayyaman di kuñ lo ci mbëggeel te kuñ jam lo sax ci mbëggeel te al-hubb moy ko xamne ne daf ko def jam moo digal muy def moo tere muy baye loolu mooy muy tëyam dama nekk jar-jar ak cofeel nekk jaam ak cofeel wa an nahji xayril xalqi walis yooni gën ci mbindeef mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lëstu deet man axii du may jàng du ma jàng mukk walis yooni gën ci mbindeef mu yooni yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam isa saara ndam dox na xayru naasi gën ci mbindeef yi mooy bu yonentu defee surtout ma dox mooy ma def waraahu ci gannaawam yonentu daal sallallahu alayhi wa sallam moom laa topp bu doxee ma dox bu taxawee ma taxaw mooy fa in xalla ay xalaltu ida saara surtout wa in xalla xalaltu ida saara xayru naasi ndem gën ci mbindeef gën ci nit dox na surtout ma dox wara aw ci gannaawam wa in xalla ndam wàcc na sippi xalaltu ma wàcc loolu lañ ci xasa wa in xalla yowman ay xalaltu fal masiiru dox bi baidun aji sori la dugg na ci beneen maanaa kuy topp yonent bi jëm ci pay yàlla bi pay yàlla bi du jeex yonent du taxaw ku topp yonent doo taxaw da bàyyi wax ne ku yàlla xas ubbi sa bëti xol ba nga am cofeel jëm ca la nekk foofa yow am nga soxla boo xam ne du jeex bu mu alayhi salaatullahi summa salaamuhu kulli muraadaatil karim mu ngi def julli di tawassul ci gannaaw julli geeg nuyoo gi ya juudu yàl nay tabe ñaan lañ ci jublu alkarimu aji tedd ji kay yàlla bi kulli muraadaat ci mbooleem namm-namm sax maa ngi julli ci yontu ñu koy bantu di ñaan yàlla mi nga xam ne mooy kërim mooy aji tedd mu tabe maye mbooleem namm-namm yi alayhi salaatullahi duma salaamuhu tekunu dana lekk dana nekk lanaa ñeexal ñu alxusna ak janna wa baadu gannaaw ak janna mazidun ndollal muy gis jëm yàlla yi ci boppam للذين أحسنوا الحسنى والزيادة للي نعم يا لنا نيرفتال أمن جنة الحسنى وأمن دولة المجلس يا الله تجمع عليه الصلاة والسلام وآل وصحب ما الفؤاد فك قلبي عميد أجي بقلة نعم جملنا كم كم بقلة mu ngi julli ci yontu bi sallallahu alayhi wa sallam ak aali bayti nabi sallallahu alayhi wa ak sahabatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fépp xol baa ngi bëgg te moom xolam bi di dégg ñu ko di bëgg yontu bi sallallahu alayhi wa sallam dund tàggalewu leen dee leen dekki di leen tàggale waaye daf koy dëggal di ko wéral sallallahu alayhi wa sallam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 ورضي عليه وعنه حق قدره ومقدار العظيم أما بعد إلى حضرة الأخ الحبيب الأجيب الأريب عمر بن مالك لطف بنا وبه المالك دول سامي سامي إلى حضرة الأخ الحبيب والأديب الأريب عمر بن مالك أطاف بنا وبه مالك موجب الإعلام بوصول الكتاب وجزاكم الله عنا خيرا أما السؤال عن الفرق بين العبادة والعبودية والعبودة والعبودة فالعبادة عمل العبد لله والعبودية عمل العبد بالله والعبودة عمل العبد بالله وتقول العبادة عمل بالشريعة والعبودة والعبودية سلوك الطريقة والعبودة مشاهدة الحقيقة أو تقول العبادة عمل المحجوب والعبودية عمل المريد والعبودة عمل العارف أو تقول العبادة عمل أصحاب اليمين والعبودية عمل المقربين والعبودة مقام السابقين أو تقول العبادة عمل الظالم لنفسه والعبودية عمل المقتصدين والعبودة عمل السابق بالخيرات وتقول العبادة عمل العالم والعامل والعبودية عمل الولي الصالح والعبودة عمل العارف الكبير وتقول العبادة مقام إياك نعبد والعبودية مقام إياك نستعين والعبودة مقام المحو في شهود العيان أشار الحق إليه بعدم الذكر وتقول العبادة عمل الجوارح والعبودية عمل القلب والعبودة عمل الروح فالمتعبد فائز مثوب وثوابه الجنة والعابد مخصوص موهوب وخصوصية القرب من الله جل وعلا والعبد مرضي موهوب وهبته التصريف والخلافة عن الله جل وعلا قال العارف الإمام البصيري يمدح شيخه أبا العباس المرسي كل المحاول الجنوب مقامه ما العبد عند الله كالمتعبد فالعبادة حق الألوهية والوحدانية والعبودية حق الوحدة والعبودية حق الأحدية وإليه يشير قوله صلى الله عليه وسلم ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبد المؤمن لذلك إذا صدقت العبودة تجلت فيه الأحدية فصارت هي هي وهي هي وبذلك تصح الخلافة فصار العبد عبد الذات حمد الذات وصار ظلوما جهولا ولنمسك عنان القلم أدبا مع الحضرة أما السؤال عن علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين فعلم اليقين إيمان العبد المحجوب بأن الله واحد في ذاته وصفاته وأفعاله وعين اليقين إيمان العبد الممزوج بمشاهدة أن الله واحد ليس معه شيء مع بقاء الشعور بفنائه وحق اليقين استهلاك العبد في الوجود المطلق حتى لم يبقى شعور به ولا بفنائه فالفناء بالأفعال مقام علم اليقين والفناء في الصفات بل في الذات لكن مع العلم بأن هذا فناء مقام عين اليقين وفناء العبد عن فنائه مقام حق اليقين وتقول تقول علم اليقين إيمان العام من وراء الحجب وعين اليقين رؤية العبد حقيقة التوحيد قبل الفناء التام قال تعالى لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين وقال <clears throat> فنزل من حميم وتصلية الجحيم إن هذا لهو الحق اليقين فعبر عن الرؤية بعين اليقين وبالتصلية عن حق اليقين فعلم اليقين مرتبة العامة وعين اليقين مرتبة الخاصة حق اليقين مرتبة خاصة الخاصة أو تقول فعلم اليقين مقام الإسلام وعين اليقين مقام الإيمان وحق اليقين مقام الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبهذا تعلم أن العبد إذا فني في الأفعال أي عرف أن لا فاعل في الوجود إلا الله فقد علم علم اليقين فإذا فني في الصفات أي عرف أن لا حي ولا مريد ولا قادر ولا سميع ولا بصير ولا متكلم إلا الله فقد صار إلى عين اليقين وإذا علم أن لا أن لا فقد وصل إلى حق اليقين السر أسرار دقاق لطيفة تراق دمانا جارة لو بها بحنا يا رب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوسنا ولست حل رجال مسلمون جميع يرون أقبح ما يأتون وحسنا انتهى السؤال والجواب باختصار لزق الوقت وعدم الفراغ وقوة الشواغل والله تعالى أعلم من أن من أن يضل اكرم السلام وكتب عليه السلام من الله شيخي وأستاذي إبراهيم الحافظ لا ترميم bàyyi Mamar bin Malik la ko tontu ko wax ne ko jot naa sa <clears throat> leetar waaye farq bi ngay laajte diggante ibadatu ak ubudiyatu ak ubudatu moom lay laaj bàyyi na ko ibada mooy jëfi jaam bi ngir yàlla ubudiyatu mooy jëfi jaam bi ak yàlla cee dafa jëf ngir yàlla kii dafa dimbandikoo kii yàlla la dimbandikoo iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin kële moom dafay wax ne jaamu na kii moom gis na ne moom lott na ci jaamu gi moom yàlla rek la dimbandikoo ci jëf gi wala ubudatu nag mooy jëfi jaam bi fi yàlla xam na ñaar yee yàlla tudd na ku mu leen kii junj na ko ci noppi gi mu noppi ci moom buñ ne la ci néeg bi ki sol bu mu wert mi mooy bàyyi ki sol bu weex bi mooy ahmed bi te xamoon nga ne ahmed ak bàyyi Moustapha moo ci nekk ñu noppi ci keneen waxuñ ci dara dangay xam ne ki sol ki sol من أولا نحن العبادة موي جفي شريعة عبودية موي سوبو تي طريقة عبودة نك موي جنوك حقيقة ولا عبادة موي عمل المحجوب عبوديته موي عمل المريد عبودة نك موي عمل العارف ولا غني عبادته موي عمل أصحاب اليمين عبوديته موي عمل المقربين يلا جيغل بوفم عبودة نك موي عمل العارفين ولا غنى عباده موي عمل اصحاب اليمين ولا غنى عباده موي عمل اصحاب اليمين عبوديه موي عمل المقربين عبوديه موي عمل موي مقام السابقين ولا غنى عباده موي عمل الظالم بنفسه يالا تدو ني تيربي نيت لاكو سدل نيم دون لو تيربي امنا شنو خام داني توي سين بوب am na suñu xemoo am nañu jitu kon ibadatu mooy ñuy tooñ seen bopp obudiyatu nag mooy ñi digg doomu obudatu mooy ñi nga xam ne dañoo jitu ci lu baax wala ibadatu mooy jëfi aalim bi jëfee borom xam-xamam wa obudiyatu mooy jëfi waliyu saalix obudatu nag mooy jëfi alaarifu lkabir danga fekk loolu ci wàccuwaay martabaay turwa ak martabaay melaw yi ak martabaay xilaafa ibaadatu mooy maqaama iyaaka naabudu yow rek lañuy ñuy jaamu ubudiyatu mooy maqaama wa iyaaka nastainu yow rek la ñuy dimbali ko kooku moom gisul ne mën naa jaamu dafay dimbali ko yàlla ci jaamu ubuudatu nag mooy maqaamal maxu bu nga xam ne faa ñàkk na moom ci janoo seetu janoo gi mu ne yàlla tudd na ñaari leen noppi ci bii junj bi ba mu ca noppee wala nga ne ibaadatu mooy amalul jawaarix yi mooy jëfi cër yi ubudiyatu mooy jëfi xol bi ubudiyatu nag mooy jëfi roxo gi kiy jaamu kiy jéem a jaamu al mutaabid dafa mel ni dafay jéem a jaamu faidun aji texe kuñ yool la luñ koy yool mooy aljanna kiy jaamu nag moom kuñ jagleel la kuñ may la خصوصيته موي جيغي جام بي نك موم موم كوغ گيرم لا كوغ ماي لا مايام موي تصريف موي خلاف فلان ناي من عارف بصيري دفا وخني كل المحاول في الدنو مقامه مغي تاغ سيرينم ابن عباس ne waxal kuy jéem a jege ba àgg ci maqaamaay sama sëriñ bi ci yàlla maa ngi koy wax ne ko bal abdu inda allahi kal mutaabidi jaam bi bokkut ak kuy bëgg a jaamu taabid mooy daf koo bëgg a def kii nag daf koo def kii jaam la moom gis nga foofa ku gën a ku gën a kawe ci sulamul ubudiyati rek moo gën a kawe ci xurriya lu bàyyi wax ne jaam bi feeg mu ngi bëgg dara mu ne jaami loolu la feeg mu ngi bëgg dara lu ma yàlla jaami loolu la te feeg jaam baa ngi nekk jaam ak leneen lu ma yàlla wala leneen a ngi am cër ci moom lu dul yàlla kon àggagut ci njaameeg xurriya àggagut ci ñi goreel pour mu àgg ci def pour mu mën a soppandiku ci nekk gi dangay àgg ci njaam ak dëgg-dëgg njaam kooku moo lay goreel li waykat bi doon wax atamanna ala zamani muxaalan an tara muxlataaya talaata xurri maa ngi bëgg ci jamono loo xam ne dafa jafe mooy ma gis gor liñ ci jublu mooy jaam boobu nga xam ne gore na ci jaam ak leneen leneen leneen leneen lu moo lumu lu dul yàlla tabaraka wa taala moom la cheikhu tijaani wax ne alxurru man taharara min ribqati ubudiyati gayrillaahi kooku mooy gor mooy ki gore ci buum ak njaameeg lu dul yàlla gor googu nag ku ca àgg ca dëgg ak njaame dëgg-dëgg koo koy soppandiku ki dem nag bañ jox la ngay soppandiku xam nga ne ak goo emoo ci dangaa gore rek waaye dangay ngay goreel yow loolooy maqaamu xilaafa nga xam ne moom la kii doon junjël sëriñam ne jaam bi ak ki jaamu jaamulu duuñ benn bàyyi ne ibadatu xaq uluhiya la xaqi uluhiya la ak waxdaaniya waaye al ubudiyatu xaqi وحدتنا اك اك عبودتنا حق الأحد يلا لولا من واحد ينتي واحنا يا الله واحنا ما وسعني ارضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن قلبه لا واخ ba pare ne abdi suma asamaan attanuma suma suuf attanuma waaye xolob sama jaam bi xolob sama jaam bi bi gëm kooku attan moo ma attan lépp duñ ko wax moo tax bu fekkee ne njaame gi dafa dëggu ku dëggal njaame gi ki dëggal njaame gi dëgg dëgg mooy ki dëggal njaame gi moom la ahadiyatu feeñ ci moom bii njëkk lii mujj rekk la léegi ca mujj ga te jamono amut léegi ca njëlbeen ga te jamono amut mu mujj di di di moom muy moom foofu la xilaafa boobu lay wéree loolu foofu la xilaafa yi wéree باي مونے جامبي مو جي نك دي عبد الذات دي حمد الذات تيم مو جي نك دي كي انو خلافه كي خامنا يالا نك يوخ نكو ني يالا نغي وخ ني ظلوما جهولا لا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقنا منها وحملها الإنسان وإخلافة العظمى أمانة العظمى بها قبل مملئنو يلا ميلا إنه كان ظلوما جهولا بايمنا ظلوما لي مجاودتي طور العبوديتي دا فوفا دمنا فا ген تي ген تي جون اك نجامي رك ген تي جون اك نجامي دا فا غوري پيبا سوبكو سوبك پيبي ونه جهولا موي خم جيم خم فسأل به خبيرا بين أي جاهلا به kon jahulan fi mooy xabiiran googu moo tax mu ne te li wax moom la ñuy wax fii mooy mu ne xaaral ma lem ma ma ma ma ma lem ba xalimba gi ngir tegginoog péeb yàlla bi mu ne amma laaj bi mu laaj ba tey ci ilmul yaqin ak aynul yaqin ak xaqul yaqin xam-xam bu hóor ak hóor ak janoo ak dëgg ak hóor ولا هو هور قدقو من علم اليقين موي جمك جام بيغا خمنه محجوب لا دنجكو ملال لوم غيسوت مو گم گم گيم گم نه يالا كين لا سي ملوم سي سي جمم سي ملوم سي تورم لول علم اليقين لا مل نيغا خمنه نونو اولوني نيويورك امنا تدمو امريكا علم اليقين mooy gëm jaam bi nga xam ne dafa booleeg gis bi nga xam ne moom lay gis yu am mushahada ne yàlla kenn la kenn nekkut ak moom ànd ak nag yaa ngi yëg ne da ngaa jeex <clears throat> mu ne loolu mooy aynul yaqin waaye boo demee ba jeex ba jeex ci sa yëg ak ne yow da ngaa jeex dara desutut yëgoo sax sax jeex yow bu boobaa loolu mooy xaqul yaqin moo tax bàyyi ne jeex ci jëf yi maqaama ilmul yaqin la te loolu bàyyi nee na way gëm yu bari àgg nañ ci ku dem ba xam ne dëgg-dëgg laa faila fi l wujudi illa allah kooku jeex nga ci jëf yi ku xam ne kenn jëfut ci nekk gi lu ma yàlla kooku ak nga ci maqaama aynil yaqin boo jeexee ci melo yi xam ne kenn melloowut benn mello lu ma yàlla tabaarak wa taala bu boobaa yow jeex nga ci melo yi jeex nga sax ci jëmm ji laakin fekk yaa ngi yëg new sag jeex loolu aynul yaqin la waaye boo jeexee ci melow yi jeex ci jëmm yi ak bi ci fàddu yow ci sag jeex kooku mooy xaqul yaqin wala nga ne ilmul yaqin mooy ami ami bi lim gëm nga xam ne mu ngi ko gëm te fekk mu ngi am xijaab bu dox digganteem ak loolu aynul yaqin mooy jambi gis deug deug tawhid njëkk muy am fana gu mat seuk jeex gu mat seuk ya la ngeex ci ñooñ safara ne la taraw al jahima de ngeen gis safara summa la taraw naha al yaqin top de ngeen ko gis ci bëtëg kóolu nga xamne kon aynul yaqin moy luñu gis fi mu ne fa nuzulu min xamim wa al jahim inna hada la huwa xaqul yaqin ñi nga xam ne <clears throat> dañoo gis safara ñooñu la yàlla wax ne da ngeen ko gis gis ak aynul yaqin waaye ñi lakk safara nag ñoom la yàlla wax ne dangeen ngeen ko lakk lakk ak xaqul yaqin mooy da ngeen ko mos dégg suukar ak gis suukar ak mos suukar xam ne suukar neex nañ ñett yooyu yëpp du maqaama yi maqaama yi duñ benn kii fa dégg ne suukar rek kii nag gis na sukar man na am sax gis na kuy lek kuy màcc sukar di ko mu naan neex na waaye bokkut ak màcc sukar mu neex ngay tàqamtiku yow ci sa bopp ay ilmul yaqin ak aynul yaqin ak xaqul yaqin ilmul yaqin martabaay am yi la aynul yaqin martabaay xaas yi la xaqul yaqin lag martabaay xaasatu xaasati la wala mu ne waxal ne ilmul yaqin mooy maqaamaay islam aynul yaqin mooy maqaamaay imaan xaqul yaqin mooy maqaamaay ixsaan hal jazaa'ul ixsaani illal ixsaan ixsaan nag ixsaan rek mooy koy fay loolu la yàlla wax bu waaye mu ne ci loolu nga xamee ne jaam bi bu jeexee ci jëf yi xam ne amut kenn kuy jëf ci nekk gi lu may yàlla tabaraka wa taala kooku xam na xam-xami ilmul yaqin bu jeexee ci melo yi xam ne kenn meloowut ne mooy aji dund mooy aji xam mooy aji namm mooy aji kàttan mooy aji dégg mooy aji gis mooy aji wax lu ma yàlla tabaraka wa taala ku def loolu àgg nga ci ci aynul yaqin boo àggee nag ci allah maanaam daq nga lépp lu may jëmm ja rek kooku moo àgg nag ci xaqul yaqin moo tax mu wax bayti Seydina Ali wax am ñu ne Zeynul Abidin Ali moo ko wax ne mbóot mi ay mbóotan ci yu sew yu xoyab yu larax yoo xam ne ku ko waxoon sax jaxran ñu tuur sa deret bëri na mu ne xam-xam bu wér bu foor boo xam ne ku ko wax ñi lor la ay tabuuba ay góori jullit kat ñoo koy def jàpp ne li ñuy def ñi ngi ci dëgg ndax loolu la seen seen dayoo jox loolu la seen xam-xam dégguloo moy la bu rayra ta waxone akhasu min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam jarabayni min al ilm ma ahaduhuma faqad basastuhu lakum wa amma al-akharu law basastuhu la minni hadha al-bal'um Abu hurayra tane jelna naa ñaari ñaari ñaari mbuusi xam-xam la jël ci yonentou bi sallallahu alayhi wasallam sallam benn bi mom la leen wax benn bu ma ko waxoon ngeen dagg sama baat góor yàlla yi ne mooy xam-xami góor ñi nga xam ne ku ci xàggut xàggoo ci waruñ la cee waxee ku la ci waxee dana la fitnaal ah nit ci zaahir yi nag ñoom dañoo wax ne mu ne ñu ne mooy mooy xam-xami fitna yi moom yi nga xam ne loolu la xamoon ku ko nettalee ñu rey ko ku ci nekk kenn du la weddi waaye ku ci nekk sa xam-xam mu ngi tolloog sa dayoo bu njalee dugub lu tax mu ñëw yaa ngi yaa li li sa doq attan rek ngay jël noonu la mel xam-xam yi jugee ci yàlla it ku nekk ngay jël rek lu tollook lu tollook sa leeraayu xol loolu nga mën a jël moo tax du tax nga weddi ñële ne li li ñu wax ci la bokk waaye xam-xam yi fitna ñoom loolu la ñu wax waaye xam-xam bu ñu xam ne tim boo ko waxoon fitnaal borom loolu ba tey ci xam-xam yi fitna la bokk sax xam ne boo ko waxoon ni du ko dégg ba mu weddi loolu it fitna la kon ñoom li jàpp ne waxuñ ko sax wax nañ ko te te yëguñ ko allahumma salli ala sayyidina barhamu baun waraun alifun thumma ha mimun mujël faydu tiijaan jox ñu ñuy naan